boy fii boy boy boy boy dara ndaxu si eh, ndax bi tey. sa jonge na de tey moom gaan moom moo dugg lool noonu gaan. da nga xam ne laay ba nga xam sa jonge na. waaye léegi looy rey sax. da ngay ñibbi kii naa loolu lay waa léegi luy problème bi luy problème ba xam nga yow nga wooree fii ba ne si des ngay daw di ñibbi lay daw lay ma c'est na le sama yaay rek moo fa nekk te am na ay business yu ma ko war a doxal. te xam nga sax seen fii neex na dëgg la waaye tamit suñu fee moo ko dàq de. bu xu neex na waaye ki ñaa boo moo tax foofu laay ñibbi te sama kenn du ma ko yàqal. waaye sama gaan nga ne yaa ngi gën a xam <laughs> corté rek. booy leen laa lay xamal yaa ngi dégg seen kër gi fii leen di ngeen xañ ma jàmm bugg leen ma bàyyi ci sama bonheur la ngeen bagg daal ah ok ma korité fi ngeen yàqal ma sama korité déedéet fee laay dem foofu la korité nekk xam ne lu ma ko daax booy xoolal kañ dem jël mesure et puis c'est tout ah waaye yow nag korité yoo fi yëpp bëgg fee jëlee mesure loolu moom war na korité yoo foofu bu bu ko sa papa ñëwal loolu laa ñëwaat mais itam ki ñaabu ki ñaabu xanaa amul ay téye nga ñaaw loo ko. mais da ngaa siis. danga ma de da ngaa siis dëgg la ki ñaabu am nay ay am na ay téye waaye sama nijaay moo fi dàqee ñëw ndax moo yor solution bi. waaw rek rasul la. waaw day ñawal góor ñawal jigéen ñawal homme ñawal femme. waaw waaw fàtte naa femme mooy awal góor jigéen sax. li may ñaw. Bueno, mandame pa yung wakla ko pa rin yung search sa mga mga mga search yun. Sige ala pare. Ay, diyo mo dosa, dosa. Ay, diyo mo dosa rin. Anong mo popcorn na. Ay, alo dosa. Yeah. Naga mo? Silo na ka na? kon ndogu nga nii ba pare. booy ma rek bu ñu àgg foofu xam nga sa papa dafa bëgg lu la neex. waaw waaw càpp ah waaw moo tax bëgguma nag ma lay wax sama ñaw nu muy demee nga koy sàcc. <laughs> waaw wax nga rek kooku moom kooku da waaru. mais wuyu tey moom loo kii eh te loo dogoo tey. mburu bër <laughs> waay booy yow yow nag moom saa waay xaa yow la ñu woyaloon boobu baarambe baarambe baarambe mburu bër waaw <laughs> woy boobu kay yow lañ ko woyaloon mburu bër xam laa ñëw kimi na yow ñu tax fii tax ko fii maal dàqale ma romb lay <laughs> ah, maal dàqale xam kimi na xamoo waay waa jooju ko ah kooku dafa soof ay eh, kooku koy man billaay daf maa toppee mbooro ma ne ñoom ñu ngi ci seen yooyu am na julli yooyu ñuy julli ci jàkka yi du ñuy fanaanoo julli billaay léegi kay moom eh, dina amati jot jotu kër ga kay ko amati jotu atelier ak kër ga ba bëgg set xanaa dina tal ay nelaw nag ah xam naa ñoom Moussa dinañ ci kii de dinañ ci kii sama jarbaat bi ak eh, kii ñoom ah ñoom kay dinañ nekk ci seen olala ñoom it Eh, dosa xoolal booy ñoom bu ñu nekkee fii di ñëw maag yow ci ginnaaw la waaye ñu nekk zéro fa zéro bu neex waaw nañ ko kal foofu si waaw moom kay dootu fi jaar dootu fi jaar yooyu kay moom bu ci dara looy ragal waaw bu ci tiit dara ma ah, ci tiit dara yooyu kay moom apprenti sax duñu génn si ginnaaw ma ne la ñoom kay nañ yem ci atelier bi yem ah gisoo keroog nag keroog ah, samay apprenti ñoom dañoo yaru de non mel ni kooku Moussa kooku dafa xamadi waaye waxoon naa la ko nee naa la bàyyi leen boo yooyu dañoo am njëriñ sa ñaw bi nag moom waaye sa ñaw bi xoolal noo amul nu mu naayee sewul bëgguma ko profité wul dama ko bëgg a teg ci temps door la ko ñaw bu aw yoon waaw waaw eh, ne quittez pas dëkk bi moom lépp lu fi waaye di def na doon loo xam def loo xam wax loo xam boo tëddee nelaw sa ginnaaw ba nag weeru koor bi billahi ku ci bàyyi lu def naka sa dul noonu yàlla dalay weer fal